à l'intérieur du pays mais mu mujj ko bàyyi ñëw lancé woon benn défi le maire de Dakar mais ñu gis à la dernière minute ni ki ni démb aussi mu am benn dégel bu ci am jàmm del daal di dellusiwaat Abdou Nguer da nga bokk si ñuy wax ne dafa rétropédalé wala loolu moo gënoon. pour mais effectivement Bassirou Diomaye Faye dafa intervenir parce que moom moo jiite réew mi. waay te candidat yëpp yam ci moom. am ko taxaw naan man du ngeen campagne. Hmm. taxaw naan du ngeen campagne loolu dafa mën a ne. loolu est-ce que yow xel xal nangu na loolu xel sax war na dugal ma Ousmane Sonko bi mu koy wax da doon cukkutaan xelam mi parce que li ma koy wax xaram yi la doon xontu keroog pour jox leen énergie bu ñu naan sax waaye guerrier la ba pare dem làqatu ji Touba tëdd fa naan sañ Cheikh dama wool ak sañ Cheikh dama wool ne leen 15 heures dem leen mais 15 heures fekk ko fa 15 fekk ni nit ñi dajaloo ba koy xaar. mu ñëw jékki-jékki mu bàyyi ba trop tard xam ne kenn demut. mu doog a ñëw naan bàyyi leen mu sedd nangam yow boo bëggoon mu tàng 15 heures fa la lay fekk. mais Nguer est-ce que du peut-être loolu moo gënoon aussi est-ce que. waaw moo gën ci moom moo gën ci moom moom non ci askanu Sénégal daa gën ci moom. ba pare ñu ñëw ngeen bëgg ñoo gëm loo naan dem na fa ci guddi def na fa déclaration ku la ko wax day fen hmm. man maa ngi kër Barthélemy Dias bii ci guddi maa nga fa woon. yore li nga am yore yaa ko am. xaaral xaaral coalition bu ne yaa ko xaaral xaaral man réew mi man lañ bëgg. Hmm. nit ñu bon ñi dong ma bëggul maa nga fa woon ku la wax na ñëw nañ fa ci guddi dafa déclaré fa day fenn diggante 18 heures ba xaaju guddi jaaruñu fa xam nga ba heure lañ fa ñëw suba suba si fekk waa baaw baab sax yeewoo guñ ñu ñëw ci rond-point ba ñii tax ay kii ñii di fëgg dënd ñii di lii kenn xoromalu leen parce que boobu waga yi ñëw ñëwaguñ ku xam ndakaaru nag xam ne nag am na ay doomu ndakaaru lan mooy doomu ndakaaru daa am ay doomu ndakaaru ñoom dañoo bëgg ndakaaru tey duñ nangu benn samba booy paas ñëw di leen yàqal ndakaaru loolu duñ ko nangu de hmm. dama lay wax de sama genre yi dañoo paas ñëw xale yi ndakaaru ñoo dul nangu nga dem paas ñëw bëgg leen a yàqal seen ndakaaru gi nga xam ne lu ne la ci Barthélémy Dias daj hmm. pour mu mën a mel nii ndax maire yi fi jaar buñ meloon ne Barth heure bii dafa ma ko politique de ah. mais ñi xam nañ mii mandat xaaju mandat la ñëw ne lii laa fi def dañ na ngay sàmba ci àll ba ñëw ñëw ne dañ koy yàq après waa Ndakaaru toog collacé bara ni di seetaan yow xam nga ne xel xalaatul Ousmane nga xel xalaatul même bu fa police jógee mu dawal caravanam ne day ñëw buntu kër Samour Dias. lu tax fit bala amut. déet mais Sénégal la rek am na droit. dama ne eh loolu du du du amul Sénégal la de kër Samour Dias fi mu nekk ruq la ku war a mitin wala war a campagne da ngay dem ca bayaalu yaatu ya dem fa campagne. caravane amul droit jaar fa aussi. loo fay wuti da turbale sax ña fa nekk di quand même wuy ma campagne nag dëgg la waaye nag campagne àggul ba ci dem ci ëttub jàmbur di fa turbale mbedd yaa ngi ne yàmbalang Ousmane loolu nag nee naa la xarab yi la doon xontu rek. ah nga jàpp dafa échec lu mu wax gëmu ko wala. non bi muy def déclaration bi naan bu ñu dem ban heure la. ba guddi na naru ko woon. 19 naru ko. man de bu ma la joxee rendez-vous 15 heures. mais li mu wax ñu war a rayante. mais li mu wax est-ce que duñ parce que gis nañu am na ay interpellation ñu jàpp ci 81 personnes est-ce que loolu nee na loolu la doon demande moo tax mu mujj. interpellation am na jàpp nañ ci vingt personnes. Hmm. yoo xam ne jàpp gi dama ne la. ñëpp a ñëpp ñi nitu dëgg yi laa waxuma fenkat yi de nitu dëgg yi nee nañ. kumba am ndey la ak kumba amul ndey ndax yaa des vidéo yu leer naññi ñu xàmmee ñu yor jaas yi ànd ak Ousmane Sonko kenn jàppu loolu moom lu factuel la ñu gis ñoo xam ne dañ leen a guddi fuye leen ne fekk nañ ci ñoom ay armu jàpp leen. mais ñi nga xam ne dañoo yor armes yi di dox digg bëccëg nag lu leen wutale. d'accord alors kay am na ma ne. Hmm. sàmm sa kàddu amuñu yaay. Pastef am nañu yaay. ñoom anañu sax. ñu ngi fi. ñu ngi campagne ba léegi. ah bañ a campagne déggoo leader ba dañ ne ñun bu ñu jàppoon ñun leader yi sax. yéen na ngeen dem campagne yi ñi mu concerné. maanaam nee nañ ñoom fi ne nii même bu ñu leen doon rey sax tant que mu ngi des benn nit nañu ci des campagne yi. d'accord c'est-à-dire que Ousmane Sonko yëfi nawetaan la bëgg a def. xam na ni moom Ndakaaru xaw ma ban kaas xaw ma ban dëkk mais Ndakaaru gii moom c'est fini. ak lu génn démb yëpp ngeer gis ma yow li ko topp fu ne la kaar jóge 15 heures laay romb ci ci. mais ñëpp waa Dakar la xaar xaar xaar 15 heures laay romb ci bi. Mhm. fu ne laa gis oto jóge fa nag. 15 heures laa fa romb di dem des médias def émission. mais xam nga Dakar 19 communes la te communes yi bu ñuy déplacé wu di ko fekk. ci foofu il du Dakar kese de. Ah, banlieue bi ñoo ko wuyu du waa Dakar. ñeent ñëpp ci banlieue bi lañ dëkk bi mérite ba tasee. banlieue boobu si Dakar fu xaaral département de Dakar la ñuy wax. waaw dama ne banlieue bi ah, waxoo raison bi quoi bu ñuy xëccoo. Hmm. xëccoo wu ñu Pikine ak Guédiawaye li tax ñuy xëccoo Bart. Hmm. département de Dakar la. du raison de Dakar. mooy sept députés yu war a am département. merci beaucoup. dama ne la bi meeting bi tasee man maa ngi jugee maa ngi jugee woon euh, des médias di ñibbi nii la nit ñi jëm moom nii banlieue ba Kër Massar Njaxal ak fële jàll ci àll ba. dañoo rooti pour ñoo feccali. Kër Njaay loo dem. carré yi wëy di dem. <laughs> merci ngeen mobiliser xoolal ñëpp ah. ko man yoral bii rek. d'accord alors sëñ Niang question bi moom dama bëgg mu mu xaw technique est-ce que finalement duñ ne Barthélemy Diaz am na lu mu bëggoon c'est-à-dire Ousmane Sonko da ko doon éviter bëgg a def alter ego am Ba mais moom fexe na ba récupérer waat coow li mu des ci diggante moom ak Ousmane Sonko. waaw mais dualité boobu moom nit ñi sax en réalité ñu ngi ko doon wax. Hmm. dualité entre Barthélémy Diaz et et et euh, Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko. mais au début Pastef loolu la doon éviter bëggoon a boole Barthélémy Diaz ak Abbas Fall mais ñoom fexe nañ ba def seeni ruse politique. ba récupérer waat game bi mu nekkaat seen loxo. waaw mais xam nga bu ñu demee techniquement et scientifiquement. waay ouais. y provocations yoo xamante ni. Hmm. Ousmane Sonko aujourd'hui en tant que premier ministre. Ouais. ne doit pas répondre à certaines provocations. est-ce que parce que répondre à certaines provocation moom mooy en réalité gën a yokki yëkkati oraaw ñu koy provoquer ci loolu. beneen bi tamit dugal ko ci benn registre boo xamante ni ñu bëree bëri mën nañ taxaw après ni lii du woon cëram. Hmm. xam nga aujourd'hui quoi ko l'on peut la déggee dafa faillir d'une part ci ay déclaration surtout bu événement yi amee Saint-Louis amee. non man je le dis et je le répète. dans la plupart des déclarations ou bien même des discours de Ousmane Sonko des fois on sent te dérives communicationnelles. Mm. des fois day am ay lajj-lajj. day déraper lajj-lajj yoo xamante ni moom sax après buy waxaat leneen ca lu mel noonu. Hmm. da ngay gis ni mu ngi koy bëgg a rectifier. oui tu bi mu njëkkee jàkkaarloog GPS la la la kii jeunesse patriotique bu Sénégal GPS bi. Hmm. ci laa ko njëkk a wax. cest à mooy bi mu njëkkee wax diggante vidéo ba dox ci ak ministre de la justice. Mm-hmm. amaana des fois intention bi mu koy waxee perception boobu mën na bañ a nekk ci Sénégal yu bëree bëri. non da doon xont xar yi rek. parce que foofu bu waxee ni jokkalante nañ ci ay vidéo laaj na ma lii ak nangam ak nangam. surtout boo en quelque sorte du la may dara. mais mais xam nga tey opposition bi ñi nga xam ne nañ opposition la. Mm. cest à ci politique économique. wala social wala environnemental amuñu fenn fu ñu mën a remettre en cause li régime bi di doxal. moo tax à chaque fois bu gouvernement bi prêter le flan rek. Hmm. loolu la ñuy jël mooy dérive yi ma la wax. maintenant nag dérive yooyu bu ko perfectionné woon. Hmm. ba ñu ko gën ko defar. bu boobaa di nga gis opposition boo xam dañuy tëj seen gémmiñ parce que duñu am lu ñu wax parce que tey thème campagne opposition bi Barthélémy Diaz ak ñii ñëpp xam nga lan la. Hmm. lu ruus ci communication Sonko ñu jël exploité. est-ce que yaa duñ wax si programme am de. duñ wax programme techniquement et économiquement. waa ji li mu wax ndar. sur le plan économique mënul ne. lii ak lii ak lii moo tax mënul ne duñ wax lool de. loolu la waay pikk ya jël pikk yam leen lancé moom la ñuy jël bu ko def une arme politique. Hmm. bu ko def une arme politique maintenant nag Sonko doit mesurer aujourd'hui envergure am politique am ak dayoom parce que yàgg naa wax ni amul nawle ci politique fii Sénégal fii moment bi may waxante yow bu dee nawle rek Ousmane Sonko amagul nawle ci politique bi mais daanaka boo demee ba xool loolu moom ay booyam yi topp ci ginnaaw waxuma la ay ngañ démbatur rek ñooñu ñooñu rek mën nañoo jëflante ñii ñooñu rek ñu tuuti ñooña rek mën nañu répondre ñii maanaam am na arsenal bu mën a jàkkaarloo. arsenal bi dafa bëri ba dafa doy Pastef ay xam-xam rek a fa ne propre personnel. non ay borom xam-xam rek nga fay gis. <laughs> du ñu walaakaana de ci wàllum xam-xam. Hmm. lu leen maay mën a waxal walaakaanuñ ci xam-xam. Euh, non parce que tey xam-xam nag moo tax ñu accéder egg si fii si egg bu gaaw bi fokk fi ay ponkal di.